boo solee keneen dañ may wax mm-hmm. léegi boo solee keneen kenn du la wax mm-hmm. suñu borom mooy xool jiital doomu aadama suñu borom mooy xool li ko neex mu def ci doomu aadama dëgg la yàlla mooy jiital nit mm-hmm. amaana buy sol couleur du sol couleur boobu ci woot couleur bu ñuy wax couleur góor jigéen non non bañ ci mu sol ko ci moom te xale la dafa toll ci couleur kon moddu la moddu la dafa toll ci couleur ak i couleur am waxuma ni couleur góor jigéen ak i couleur am moom it mu xam ne nekkatul ku ndaw foofu laay waxee moo xam ne nii mooy moom it mu xam ni kilifa la. foofu laay waxee. lu ko dal lu ko dal ñu lay gaañ. foofu laay waxee. lu ko dal ay xaritam lay gaañ bu dee lu ko dal ay xaritam lay gaañ bu dee am na xarit. lu ko dal ay xaritam lay dal bu dee am na xarit. xarit dafa jafe nit mën a laa sinte nit mën naa sinte réew waaw mm. Souleymane Faye nee na ki nga gën a mën a bëgg moo la gën a mën a bañ des fois nga nekk ak nit di leen jox ay alal di leen jënd oto di leen def lépp te amaana dañuy bëgg amaan na loolu loolu ñoom ñu ngi ko koy def te xamu ko après mu jël leen jënd leen oto xamul xamul xamul ki ko bëgg xamul xamul ki ko bañ des fois nit toroxal ko saaga ko mm-hmm. xey suba nek mm-hmm. ci yow di wax ci yow di tafla officiel la ba mm-hmm. war nga tit ne ci mm-hmm. mo na la defaat ni mu la def billaahi <laughs> am sal so la tay su ëllëgee mu tag la man kuma saga so soo ma ñëwee wut ci dina la daw dëgg la parce que xamna ne soo na naa nga def ma li nga wa def re dafa jafe dama leen da wax naan ki lay andil mo lay yobul japp nit dafa jafe defa ni di la tereewul man duma man duma man guerre duma xeex xeexu jàmbur. Mm-hmm. duma guerre ak kenn waaye dépassé na ay guerre mm-hmm. waaye dépassé na ay xuloo dépassé na la yoo xam ne ñu fi manqué la parce que yàlla tollul foofu. Mm-hmm. yàllaa ko jiital mu jiitu. ndax xam ñu ko bëgg ak ñi ak ñi ko bañ. nit mënu laa saaga wax la lu ñaaw kay suba ànd ak yow di la siiñ nga xool ne loolu la bu li kee mu saaga ba muy taxaw di la saaga ñëpp monte bi ñëpp di la tim ngay wax ci nit lu ñaaw kay suba nga àndaat ak moom nga foog ne bëgg na la bëggu la bu bu bu subaa bu suba mën na laa def ni mu la defone defat ko kon nit lay xam sa nit ñi nga andal du malike ci sax lay wax nit nit koy and nit add bi la monde bi la xal mm-hmm. monde bi la xal waye na xam ay xaritam normal waaw na xam ay nitam normal mm-hmm. na xam ñuko bëgg normal tay bu ma joxoon paaka ni ma reel wali barki yonent yalla xam sama bop lay ray mm-hmm. parce que man ma gëna bëgg bopam deug la xam na ko su sun joxoon bu ma jox paaka ni ko reel wali barki rey boppam bàyyi waale bu ma jox barki xam man laa la wax. billaay bu ñu joxoon jogo bay paaka ne ko reyal. waaw kii mu rey boobu ne xam ne wàllu ak dogo. pare loolu wàllu moo ko seedal boppam. nit. Mhm. say nit da leen di xam. say nit da ngay xam ne ñii say nit lañ. Mhm. man yàllaa ngi may suturaal. Mhm. ni moo moom moo ma ko def. su ma nit ñi déggee moom la su ma déggee daal moom la su ma déggee su ma déggee avion moo ma ko def. est amaana man mënu ko bañ mënu wax ci moom lu ñaaw parce que waruma dara lu ñaaw. tey su ma nit ñi joxee cër ba Sénégal yi jox ma cër Pawlish bi jug moom mii la xolam moom ak ma ex ànd ak moom ànd ak moom nag du ñu boole ñu yàlla rek moo defal loolu suñu xamante mi nekk ci bakkan fi may waxtoo la nga mu ma dama laa bëgg mm-hmm. kon loolu mbëgg bu naturel la sama xarit la sama lépp la mm-hmm. mais say nit nit day xam nitam. lu ko bëgg xam say nit. nit mm-hmm. mooy mooy xam sa bopp rek nit day fonk nitam ak ni la nit ñi fonk mm-hmm. man du ma barki sa alxuraanu karim if mi du ma wax lu ñaaw. Mm-hmm. ànd ak yow. wax ma lu ñaaw ci internet bépp gis ko. nga xëy suba di ànd ak te man ma lay reetaan dama naan kii li mu def ki dina def. te nag ñëwuñu pour guerre. ay dëgg la. waaye dépassé na pour guerre waaye ñëw pour guerre. ay waaye ñëw waaye xam nga waaye li ko ñor moom day way rek. yow booy guerre guerre la sa bopp yow. sooy booy gaarawaal gaarawaal sa bopp waaye xam li ko ñor. na way dem tëdd nelaw way jot mu ñëw way a koy xew yéen a koy indil a koy yóbbul hmm. yéen a nettali yéen a wax lu ñaaw yéen a wax lu bon yéen a defar te nit buy def ci loolu maytul nit boobu hmm. mooy ki ki lay moo lay yóbbul hmm. mayul ma ku lay indil loolu moom ki lay indil chaque fois nga mel ni nga mel bu xëy suba da lay yóbbul damaa def quatre vidéo ci moom ci lu mel noonu. adduna bi dafa jeex. Mhm. dëgg la te dara fu ko fi. am na bi dara jaru ko fi. dëgg la nañu rafetal. Mhm. surtout fa lañ mais am na macha allah tey buñ tey buñ ba nit mënta taxaw fenn wax. Mhm. adduna baa ngi toj. d' accord Demba waaw maanaam ñu bëri mu ngi koy wax des fois mais des fois da ngay gis Pawlish ci ndat bi des fois nga gis Pawlish bu doon bi mais des fois nga gis Pawlish bu sérieux boo xam ne yow danga nga koy xool rek naw ko ci saasi. maanaam ci côté boobu ci lu muy ëppee mooy. lu tax yow nga bañ ko fuu koo maanaam wala kuy tricher bopp maanaam ku nekk ci lenn ba pare mais da ciy tricher parce que baaxul parce que man li li may def di du ma ci tricher mhm. mu waxi dof ak sama ñàkk mhm. dama ci wax xol te mhm. dama xam suuf bi xale laa mais dama ci xam lu ndaw tuuti waaw dama ci xam parce que da ngay ànd kilifa kilifa neexul àndal li ko neex rek ngay dégg limu mu neex rek lay dégg dëgg la te boo amul chance kilifa gi bu amul chance dañ lay sànq dangay xam naa sax xuloo ñëpp. waaw xuloo ñëpp wóorul. Mm. waaw. Mm. xuloo ñëpp a gën a bon ci àddina. Mm-hmm. xuloo ñëpp mm-hmm. mm-hmm. te amaana tey àddina bi dafa jeex. nanu nanu rafetal foo baaxul. nañu rafetal rafetal dafa rafet. dafa am solo de tey damay gis lu bon sax dafa rafet. wallaahi. damay gis lu ñaax rek te waaye xol bi dafa rafet. c'est très important te waaye dafa jeune. waaye bu ñu ko bàyyi xelam. bàyyi ko sakom. ku ne mën na laa may kër ci xolam ku ne mën na laa dimbali parce que xam ko xolam dafa yaatu xolam benn la ci àddinaam barke yonent yàlla moom na jàpp ci àddinaam jabaram moo ko bëgg ak yaayam ak ay rakkam ak ay doomam ak ay doomam tey bu ko yàlla defee ma xewee ñëpp dañ koy bàyyi ndax xam ñi ko bëgg rek yaa ngi wax message bu am solo ah si dafa am lo lo jàng lo gis quoi ci ci jamono ah. na na na xam ñi ko bëgg parce que na xam ñi ko bëgg xanaa xamoon nitu démb da am solo man tamit bëggoon naa am benn lu ma la bëgg a laaj Pawlish mhm. parce que Yves boo xoolee Pawlish avant mhm. ak tay man naa koy xool mel ne beneen nit laa toog. damaa rafet léegi damaa ci ah, non non léegi du question rafet. déedéet du question rafet. Ah. Ah. man rafet xam nga lan laa ko jàppee. jikko ju baax. Mhm. rafet gaw ma gaw ma rafet rafet rafet man gaw ma rafet gaw ñaaw xam nga laa gëm. Mm, rafet jikko xool te ni muy waxee nii dafa mel ne. bi mu nekk bi mu duggee jamra ba tey. ànd ak Mame Matar Gueye ñu koy nuyu suñu papa -hmm. benen Pawlish. changement dafa am. parce que limi message bi mi lancé ni mhm. message bu fort ngay lancé. Mhm. surtout jamono ji réew mi fu mu toll li dañ ko soxla. Mhm. parce que li dafa dafa mi ngi bëgg raf ci réew moy wax lu baax def lu baax di di di di ànd ak say nawlé di bëgg sa bop di mën sa nit. lu am solo la Pawlish lan mo waral changement bo day def lu baax. wala ci def lu baax la dekk amaan ñi ngi ko defal duñ ko gis. Mm-hmm. ñi may dimbali duñ ko gis bu subaa ñu yàq ko. Mm-hmm. fi nga nekk garaaw. Mm-hmm. fu garaaw nga nekk nii. waaye day day xeex ci ay xaritam. day dimbali ci ay xaritam. day nawloo ay xaritam. ku mën nitam ay xaritam duñ ko nawloo. li ñuy wax ci moom lu ñaaw moo bari. surtout boo ànd nga bu la mayul 100000 boo koy appee da nga koy yàq. dëgg la. bu encaissé un million may la ci téeméer bu subaa da koy yàq te alal la moom moo ko mérito moo ko moom mhm. la da ngay ànd ak ànd nawle ànd nawle moo amatul caat dëgg la te waaye ànd mhm. la moom la ko moom yàlla xool ni ko neex yàlla xool ni muy cëralee mhm. moom yàlla xool ni ko bindoo yàlla moo koy xool di ko neex man li ma koy li ma koy conseillé en tant que xarit a xarit na gën a téye njabootam na gën a téye ay rakkam. te xool fi muy teg tànkam. na gën a téye yaayam. Mhm. na gën a téye jabaram. Mhm. ay mbokk kenn ko sànni. Mhm. mbokk kenn du ko toroxal mu gën a téye ay mbokkam. te ñi muy liggéeyal. mu gën leen a joxaat cër. mu gën leen a delloo cër. mu gën a xam ne tey fu mu egg ñoo ko fa eggal. xolam dëgg la ak yërmandeem ak fonk nitam ak ay nitam. waaye li boo ko nit bu ko bàyyee xolam. billaahi wallaahi nga xam ne mu ngi rafet xol ci àdduna. li li li ñu koy waxal ni moom la.